recette fiscale yi nga xam ne wàcc na ba maara détaali ci atum 2019 jamonoy Abdoulaye Daouda Diallo ci la journal bi ñëw di ko faram-fàcce yéen a kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa député Thierno Alassane Sall muy dànkaafu di mettre en garde njiitu réew mi di président Macky Sall ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature ndax moom Thierno Alassane Sall tas moom dafa jàpp ne maanaam mbirum ñetteelu mandat mën naa indi ay jëye ci réew mi a kaay ne moo nekk daas des sports journal bi di la quotidien yor yora xëy na di ko faram-fàccee ak di ko leerala ndax nee na Mamadou Ngom Ñaami li nga xam ne moom la waxoon waa Cour des comptes dawal leen tolérance waaye nag li am ba des la quotidien bi nee na am na ñuy jéem a seetal Mamadou Ngom ñaa moom ci boppam tamit ma ngi jéem di taafantaloo waaye nag lu ne fàng kenn du ko jeex maanaam mbir mi dafa naqaree weddi yéen kay gi las wax ci xaalisu coronavirus bi nga xam ne joxar bi na askan wi mer nañu ko ma ngi ci journal bii di L'As waaye li nga xam ne moom la ñuy sàkko mooy yoon def liggéeyam ñu daal leen di topp sénégalais yi tamit ñaawlu nañ bu baax a baax maanaam impunité bi nga xam ne moo am ci réew mi nitu Macky Sall yi dañuy def lu ne weng maanaam te dara du leen ci fekk yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan ñu Abdoulaye mi nga xam ne jamono mu jiite woon ministère bi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi te nag ñu koy tudd di tudd benn jigéen bu tudd Ndeye Kati Gadiaga mi nga xam ne ay marché marché la gagné ay milliards yi milliards yi milliards journal bi ni mu xëyee tuddee Diouf Sarr nee na Diouf kaa ka contact la yéene kaay gi di libération xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñuy waa Forum Civil la ñoom Birahim Seck jamono ji ñoom nag nee nañu yoon dafa war a def liggéeyam ci li nga xam ne mooy rapport Cour des comptes ndax gis nañ ne xaalis bi nga xam ne moom lañ jagleeloon askanu Sénégal ci lu jëm ci coronavirus bi dafa am ñenn ñoo xam ne dañu ko daal di ngardaajoo yéene kaay gi di la turbine xëy di ñu xibaar naan ñu waa fisc bi jamono ji nag ñoom daal nañuy teg loxo juróom benn fukk ak juróom ñaari millions yi xam ne moo desoon ci compte Sen TV ba ci biir journal bi de la turbine mu xëy yóbbu ñu diwaanu marché central bu Mbour ak Ali Kouyaté mi nga xam ne moo fay génn woon ak fetal rey fa ñaari nit gaañ fa lu toll si ñeent ci nit yéenekaay gi nee fetal gi nga xam ne moom la yoroon gars yi dañu doon wax na ci diwaanu Mbàkke la ko jëndee waaye ci benn français bu nekk ci diwaanu Thiès fa la ko sàccee yéenekaay gi di las nee na fan yi nga xam ne moom la ñu tëg ma la bu dee nag garab yi médicament yi yokku na maanaam ci pharmacie yi bu mu leen bett yéenekaay gi di Les Échos nee na Cheikh Omar Diagne ak Karim Xurum Xaq seeni avocat dañoo sàkk woon ab bàyyam négg ko daal di lànkal moo tax avocat yi ñoom daal la ñuy saisir chambre d'accusation cour d'appel yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na collectif bi nga xam ne ñooy xeex ngir nag ñi ñu tëj ci kasu bi ci anam bu jaarul yoon te wàllu politique tax ñu bàyyi leen démb doon nañu amal am mars ñoom nag lu ñu yëkkul Macky Sall dañ ko fàtte ndax nee nañu Macky maanaam jaay doole ak doxalin anam bu jaarul yoon la nekkee ci réew mi ak xañ askan wi seen ak ak seen yelleef ak képp ko xam na yaa ngi fi maanaam di def politique nekk ci ku jigi mu jël bëgg laa dugal ci kasu bi yéenekaay gi di 24 heures génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum Guinée Conakry ndax nee na Guinée Conakry gox gi ki nga xam ne ay jamono moo fa jiite woon conseil constitutionnel te validé woon troisième candidature bu Alpha Condé dugal nañ ko si kasu bi ndax dañoo jàpp ne ki fa jiite woon ay jamono conseil constitutionnel bu Guinée Conakry maanaam lu xew sa réew ma loxom génnu sa ndax moo validé woon ñetteelu candidature bu Alpha Condé balay xew sa réew ma xew sa réew ma jamono ji ma ngi ci biir kasu bi yéen a kaay la sa xëy duñu xibaar naan ñu bi bii nga xam moo tudd ni dof moom nag dafa bëggoon a amal ab concert tey jii samedi ji ca stade Iba Mar ba ca Médina waaye nag préfet bu Ndakaaru daf ko ko daal di tere